ñun suñu mouvement dañ ne financement baax la waaye accompagnement financier moo ko dàq ñun suñu jëlee un million def ni dama caw di def jox femme bu ne mu dem cinq cent mille wala deux cent bu boobaa cinq personnes wala deux personnes la ñuy waaye dañ fii ba Taliba femme bu ñu romb depuis six mois ngay jaay ci table dinañ yëkkati ñaari junni accompagner la le lendemain ñu ñaari junni bi lan la liggéey kii nag mooy président bi te mu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo donc femme au travail jërëjëf jërëjëf